ziyaare bi nga xam ne da koy ziyaare xaritam waajuram euh, sëñ Kara la boroom diwaan si la mu baax mi ci ngoor gi ak bëgg nit ki fekk la ci waañu nag naka ngeen di defee waajtaay wi waaw waajtaay wi de moom ñu ngi si moom ci soo ba léegi man ak sama dëkkandoo yi ak sama am di jàmm ak sama doom yu baax yi sëñ Kara Sylla nag moom amuñu fayam ñu ngi ñaan yàlla képp ku dem ci siyaar ba yàlla suñ borom loo fa yóbbu rek mu fajal la ko aajo joo fa yóbbu mu fajal la ko si barke Seydina Muhammad sëñ ndax sëñ Karaasi la ak sëñ Maamoor Mbacke ñoom daal maanaam daal moom da si yoon sëñ Touba rek lay yëngu kon lépp loo xam si si yoon sëñ Touba la ji moom da si dem ba jeex yàlla suñu borom mi am fay na yàlla ko fay si loolu lépp lu mu yónnee yoonu suñ Touba yàlla ko ko yàlla suñu borom may barke Seydina Daaru Kan waajuram ñu ngi ci euh, euh, si waañ bi di préparer pour añ bi buñ añee ba pare mën a sangu nag mën a sañ sa ñëw toog pour ñi fi nekk xéwlu daal ñu ngi si waañ bi ban xëyee ba léegi maag sama dëkkandoo ñu ngi si waañ bi waaw nokkas bi saf dalaa koy def maag ci waañ bi pour bëgg rek ñëpp bëgg rek mm-hmm. ñu dund ba siyaar bi gën a xéewale yokka yokka ba ñëpp yëg ko ci barke sëñ Fall. Ah, waaw sëñ Mbay ah, kay baax rek ne ci koñ bi di def lu baax di ko wax wax dëgg yàlla ak baax rek lañ xam ci moom ñëpp la boole jaboote wax dëgg yàlla barke sëñ Tuubaa. jërëjëf sëñ Mbay kan muy ziaram bi nga xam ne da koy defal waajuram xaritam ah. borom diwaan suñu karaas la suñu karaamam képp koo dégg rek xam nga taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tool bi nga xam ne ca lay bay ñu coolu borom daaru ndax euh, sëriñ Mbaye digganteem ak seen diwaan diggante Cheikh Modou Kane Sine la ak sëñ diwaan ndax euh, maa ngi déggoo ci mag ñu wax ne keroog bi Cheikh euh, bu tedd ku jógee Cheikh du Moussa Mbacké bi muy wër Kajoor sëñ diwaan bokk na ci ñam àndal ak Cheikh Modou Kane mi nga xam ne mooy maami euh, sëriñ Mbaye Kane mii. loola yi yàlla dogal na euh, sëriñ Mbaye di ko dundal dundal géet muy nii mu def tey waaj xaw képp koo xam ne am na la képp koo xam ne xaritam nga wala nga doonub taalibe wala nga doon mbokkum taalibe wala nga doon am di jàmm mu am pas-pasu ànd ak yow tey jii fas yéenee dem siyaare ji borom diiwaan si la. loolu mbégte ma ca sëriñ mbay am ba di ko def. mbégte mu ko ëpp sëriñ Modou Kara la ma ñuy fekk ji am na ko ndax ñun la joxoon digal ngir ñu dem maanaam laaj ji ndigal waaye mbégte ma daanaka keroog sax xaw naa nekk jataayu murit ndax euh, nit ñi biñ ko déggee ak maanaam ban àggee wax ko ko wax ko wax ko luñ bëgg dafa doon mbir moo xam ne si ne anu fum ko toll fu sore sore loolu nag dañuy wax ne boo gisee lu baax ci béréb muy dem ba téwén maanaam nga fekkaat ko muy baax na xam ne ku baax fa nekkoon waaye ba muy dem bàyyi na fa ku baax loolu itam moom mooy liñ mën a seede ci di jataay bi nga xam ne si moom la ñuy waajal nii euh, diggante Cheikh Modou Kane Sine la ak Serigne Diwane Sine la loolu dong la te maanaam it am nañ ci taxaw taxawle ko jàppale ko ànd ci ak moom ba am ci ak bëggam jëf jiñ ci jëfin nag te ànd ko ak moom Serigne Touba rek tax loolu itam Serigne Bay danoo ko danoo wan lu lu jar ñu jàpp ko war lu jar ñu war kaa mën a taxawu ci mépp mbir moo xam ne si ne mbirum mbiram la bu ne nii laa ko bëggee la lam ca bëgg noonu la koy amee ndax du ñu dugal ci lu ñu xamut waaw te bu fekkente ne sa kilifa la te du la dugg ci loo xam ne si ne xamu ko du la ci loo xam ne ne boo demee ba ci biir da nga ne lii xaw ma ko kooku lu la dugal man am naa cee war dugg ci waaw waaye nag lii nag jëf la joo xam ne jëfi murit la liggéeyu murit saare la képp koo xam ne si ne bokk na yow sëñ Tuubaa woo nañ la ca te gëm naa ne képp ku ñu bokkal Serigne Touba boo diggee suñu woote boobu danga nga ñëw wuyu suñu. olof naan bu fi nit bàyyi ko mel ni sëñ Mbaye mii. Mhm. doxe na doxenu maam dox doxenu bàyyi. Mhm. waaw sëñ Mbaye moom bu ñu la bëggee noonu jox ay tegtal ci moom dañ naan la Mouride Sadikh la Mouride Sadikh nag dañuy wax ne maanaam jinax dana bëttum ñàkk te kenn du ko dab di ko sekk lu dégg nag bu amee dañuy wax ne ci ay maam la ko doonoo. jëf ju rëy ak jëf joo xam ne si ne buñ ko tàbbalee ci kër Serigne Touba kenn du am loo cay xeebat boo ko sëñ bay jëfee dañuy wax ne ci ay maamam ak i baayam la ko jëlee ndax Cheikh Modou Kane Sine may maamam yàlla dafa dogal ñu jox ko Serigne Touba boole ko sëñ Mor Kumba ñu bokk bàyyi. ñu yëkkati ko yóbbu luñ sëñ Touba sëñ Touba jël Cheikh Modou Kane jox ko maam Cheikh Ibrahima mu defal liggéey defal liggéey ba am ngërëm ñu delloosiwaat bindub leetar boole ko ak leetar bi delloosiwaat ko sëñ Touba daal di Cheikh Maam Cheikh gërëm ko sëriñ Touba gërëm ko muy ñaari ngërëm ngërëm loole law na tey jii ba ci Serigne Darou Kane mi nga xam ne si ne moom mooy mooy meññeftefu Cheikh Modou Kane moo def li nekk ci sëñ bay mii tey kon loola nga wax ne maanaam bu fekkente ne nit bàyyi na fi maanaam bu yoonu armeel ya baree baree mbooloo ka dem a baax waaye bu siggil ndigaal la baree kam bàyyee baax waaw kii nag moom mujjewu puso bi mu réer fa mu war a aw ci digganteem ak kër Serigne Touba maanaam bu wootee woon ci bunti kër Serigne Touba yi la ko tàmbalee ci ca ca njaboot gu góor ga la ko tàmbalee Cheikh Moustapha ba Cheikh Murtada ñëpp dana teew la ko tàmbalee ca jigéen ña la ko tàmbalee ci soxna May ba ba soxna Fatou ba ci soxna May ñëpp dana teew kon loola jëf la joo xam ne si ne bu ko amee fii tey ci pàkkub Sëñ Tuubaa bi ay maam ak fi liggéey waaye da ko fee téye nag. moo tax ñu ne ak mbokk kenn du ko kenn du ko ak lëdd da ne laal olof. yi dañ ko wax ndax. maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam mbir. Mhm. Seydina Aliou sax dafa wax loolu dana mbir bu ko ñépp bokkee. Mhm. bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko ma dana dana mbir bu ko ñëpp bokkee bu ko borom bu ko bu xam bu ko téere séddale. Mm-hmm. na ko borom xel séddale. ndax kenn ku nekk man caa jot sa wàll. moo tax mbir mi nii mu ko amee tey jii ci ahlu Mbakke. Mm-hmm. su ko bëggee woon tey jii ci ahlu kër Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall ko fay am. Mm-hmm. ndax bu ko bëggoon ci kër Serigne falu day faw xaa kon moom bu fekkonte ne dañuy wax ne maanaam dafa nekk prise générale. moom dañuy wax na sëriñ bay général la jërëjëf kan ziare bi nga xam ne da koy ziare waajuram diwaan si la sëñ Kara ñu fekk la ak sëñ Mbaye Kane soxna si ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di leen ñaanal bu baax tawféex bu baax ak taysiir waaye di ñaanal bu baax xalifatul am sëriñ Muntaxal Basiir sunu borom yàggal ko fi loolu te wér ba liggéey bi nga xam ne moom la bëgg a liggéeyal maa am Seexul Xadiim mu defe ko ni mu ko bëggee waaye noonu lañ koy ñaanalee maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Cheikh Fall jëmb suñu boroom yàggal ko fi lool te wér ba Fall li bëgg a liggéeyal maam Cheikh Fall mu defe ko ni mu ko bëggee di ziar baax a baax Serigne Bay di ziare Serigne Ahmadou mi nga xamante ni maam lan am nantel ba ñëw ci bis bi di sant bu baax a baax a baax di xam ne bis bi moom yàgg nañ koo dégg yàgg cee bëgg a ñëw waaye tey ci la ko suñu borom dogal waaye liñ ciy dégg rek mooy ndox moom du bàyyi yoonam nit ku baax ci lu mu nekkoon maamam mu soxoo ci loolu ba tey jii muy doxal loolu loolu ku la ci woo rek woo na la ci liggéeyal yàlla te yoonu murit tamit nii lay doxee la fi mag ñi bàyyi woon ñu fexee ne fas yéenee dox ca loolu fas yéenee jaar ci seen tànk dont mënuñu ko ñu barkeeloo ko moo tax bis bi dañ koy ñaanal mu tase cee ngërëm ndax ngërëm mooy lépp rek ndax lim ci sàkku sàkkuwu ci lenn du dul ngërëmal yàlla te sëñ Mulaay day wax naan ngërëm daa mel ni lawtanu yomb soo amee ngërëm koo gërëm dana am ngërëm kon ngërëm rek a mat a sànku mu ni moor ma ne ko faal mu ni ma am naa ngërëmul Mulaay Buso am naa ngërëmul sëriñ Mbacke Bousso am naa ngërëmul Rasulaay am naa ngërëmul sama maam Kumba tey ba Mbacke ak Coro Maaroose gañee naa la ngërëm koo gërëm am na ngërëm kon ngërëm rek a mat a lii lépp muy def nag ngërëmul yàlla dong ko waral te nee xam-xam ak ngërëm mënoo koo jox nit nangu ko hmm, koo ndax lu lu ne lu nuy lu la lu jëf di may la hmm. ndax ngërëm baat bi jaa jëf hmm. yomb na loolu waaye ku ko jëfut doo ko am moom mii nag jëf ji daa jiitu ab juddam ndax jëf ji daa fekk juddam mu ñëw jëf jooju mu ngi koy jëfe ndax mu ngi mel ni théorie ak pratique xam nga Cheikh Ibrahima Fall bi nga xamante ni danoo wax ci Cheikh Ibra maanaam alxuraan dafa wax waaye Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëwee daa jëf-jëfi alxuraan théorie ak pratique moom waaw kon sëñ bi moom ci loolu la nekk mm-hmm. maanaam muy lan al iraadatu saarixin al maan mm-hmm. maanaam murit saarix naan bala nga koo doon moom faaw nga doon jëfkat te loolee ràññee nañ ko ci biir koor gi mu ñëw di dann ay magam ak i baayam ànd ak ñoom ba ci Serigne Cheikh Fall ndigal bàyyib góor jébbal ko àddee ji kon doxin wii muy dox di ko dox ci sëñ si la noonu lay doxee ci biir kër waajuram yi kon ñoo ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko te wéral ko ndax doomi doomi jaan jaan la du mbat ma nag ndax mbat ma mooy doomi soxna soo xam ne jurewuñ ko fan ko war jure yarewuñ ko fan ko war a xamaluñ ko lan ko war a xamal doomi soxna soo xamante ni jur na la fan la war a jure yaral yare la fan la war a yare xamal la lan la war a xamal doo dégg ñu naan acam ko dégg mu naan acam rek dese naa xam boppam waaye ku xam boppam du dégg acam kon moom kan jàll soyer dañ koy ñaanal suñu borom yàggal ko wéral ko ba ngërëm li nga xam ne moom lay sàkku suñu borom may ko ko ba ciy sëtam ci barkeb Serigne Touba barkeb maam Cheikh Ibrahima faal barkeb maam ngay defal ziare bu mag sa waajur sa xarit sëñ Grassi la borom diiwaan ñu fekk la nag jullit yëpp ak taalibe yi di ko waaj lan moo tax ziare bi. soxna maam Diarra bu baax. di la sant di la gërëm bu baax a baax di rafetlu teewaay bu fii ak laajte bi nga xam si jóg nga ñëw laaj ñu ko pour askan wi xam siyaar bi lan moo ko waral ak lan moo ko yëkkati sëñ Kara Sylla nag day sabab soppe di sabab roywaay ci yoonu lislaam ba noppi maamam ak sama maam am na kóllëre yuñ siqan yoo xamante ne si donte moom moo ma ko gën a xam wala mag ñi ñoo ma ko gën a xam te man fi doon lii sama baay dama daan faral di ma wax ni ma lépp looy dàq lu nekk te lislaam tax rek di di nga ci jot muy sama soppe di sama royuwaay ma yàgg xam waa këram lool yàgg jaxasoog moom xam ni nitu kilifa la nitu diine la te Serigne Touba Cheikh Ahmad ba jamono bi mu fi nekkee fu mu masaan a dégg nit ku baax daana jóg dem di ko siyaare yi di jóg di dem di ko nemmi ko ji te keroo bi su korte gi rek maa ngi gisanteeg benn kilifa la nga xamante ne moom la ma wax ci wàllu siyaar bi nee na ma nee na ma de jóg di dem di siyaare ji nit ku baax waxuma la juróom-ñaari jéego waaye ñaari jéego yi rek yiw ma ci nekk xajul ci diggante asamaan ak suuf maanaam siyaare bi li ko waral dara waralu ko lu lu lan ngërëmal Serigne Touba ngërëm nag moom la ñëpp di wut ak it moom la ñépp bëgg tey gis naa ci moom it lu ma doyit te maamam ak sama maam siqan nañ ko te xam naa ni ab roy waay la te it góor yàlla la te ndax yàgg naa ko topp ci ay imaasam yàgg na maa jaxasoog waa këram te yàlla saa borom it bayiw ko nitug suñ borom laat ndax koor gi weesu rek la xalifa bi mujj a dabb te tabb mu nekk seexu njiitul njiitul seexi képp koo xam si nag dangaa dem ba nga xam ne wóor na la ni dañ naan xalifab Serigne Touba wala boog euh, xalifa maam na jël na la jiital la ci kanam seex si nga topp ci ñoom koo ko ñëpp xam nañ ni ab liggéeykat la nitug yàlla la ndax nitu nitu nitu kese koo xam si sàmmoonte wut jaarut fa mu war a jaar kenn du ko jiitaloo ay kilifa kon képp koo xam si dañ laa jël teg la ci kanam kilifa yi nga doon jëwrin kooku noonu ab roy waay la man nag gis naa ci moom moom loo xam si lu ma doy la lu ma jaral siyaara ji koo xam si jaral na ma topp ma di ko déglu ba noppi siyaara bi ba ma koy waaj ba léegi xam naa ay kilifa yu bare bare ak ay nit ñu bare bare waaye képp ku ma gis ku nekk rek wax nga ma ci moom loo xamante ne sii rek yi maam yéex koo def daal laay réccu waaye moom def gi moom réccu ma ci dara hmm. yow nag maa ngi lay sant bu baax a baax di sant kii nga àndal nii di di yemale kàddu yi foofu nag ba ci kanam ndax ndax daanaka dañuy soog a tàmbali rek. Euh, kon nag mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu baax di leen ziare te di leen balu àq yitte ci nuyoo bi suñu kilifa sëriñ Mountakha Bachir yàlla yàggal ko fi lool te wéral di cëram di nuyu baax di ziare noonu ko ca suñu Seex Jëmb Fall di ko ñaanal moom it Fall yàlla ko fi yàlla te wéral di cëram tey jii nag ñu ngi fii ci ziare bi nga xam ne sëñ Mbaye Kane nag suñu sang lañ koy wax. ndax danoo woon jikko ju tax ñu naan koo sang bi moo waral nak ñu suñu teewaay fi fa see ànd ak moom ci ziare bi nga xam ne da koy ziare borom diwaan si la muy sëñ Kara Sylla di waaju ci ñun di xarit ci ñun di lépp ci di ko ñaanal suñu borom toogaay bi nga xam ne moom la toog toogaay bàyyam toogaay maam yàlla na ko yàgg lool te mottali ko nañ ko yéenee woon ñoom ci noonu di ziare baax nag sëñ Bassirou Anta Niang ndax ak njabootam dañoo xar doon suñuy xarit doon suñuy wala doon suñuy sëriñ ca bopp ba mate ci sëñ Moustapha ak mboolem koo xam ne njabootu sëñ Basiru Anta Ñanga kon ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar ci kanam tuut bu soobee yàlla

santati nan santu xol bi ñu tàmbalee di mébét di sàkku nga doole nu ba nu am lii tey lii ñu am nag weesuwul tawféexi Sëriñ Tuubaa te ba ko rombet day du ci moom ndax mbir la moo xam ne ay weer weer ñi ngi ko doon sàkku ngir am ko yàlla jagleel na ko ci bisub tey jii nga nangul na ko ci nangul woo xam si ne dañ caa am taw feex bu baax a baax sëriñ bi kaddu yi ñuy yëkkati kaddu la yoo xam ne sine ne kaddu yu tàmbali la ndax dañuy tàmbali sëñ Maxtaar mii nga xam ne sine sunu mag la di sunu kilifa waaye kaddu yi sëñ Mbay la yoo xam ne ay kaddu yu nuyoom la ndax yàlla dafa dogal moom mu bàyyi ko ci kër mu di saadix tabbi ci kër Murid Saadix mu tabbi ko ci këru Cheikh Modou Kane Sine maam daam Cheikh Modou Kane Sine nag doon jàmbaar yi maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp am ngërëm lool yàlla jagleel ko defal ko ndimbal defal ko tawfeex mu tab mu gimmee ca kër googee waaye kër googee mu gimmee day si la lam fa war doon doon na ko fa mu di ab taalibe te xam naa ne taalibe gam fa doon yàlla dogal na ne Serigne Touba nangul nag ko ndax su ko nangul woon tey jii bu wootee du gis kenn waaye mbooloo mi mépp ay soppeem la ay taalibeem la ay am di jàmmam lañ yoo xam ne si dañ ne ko bis bi doon na ci man te it nii nu yëkkatee seen tànk ñëw noon la seeni jëf ñëwee noonu la ñu yendoo ak moom ca kër ga di bége ba ngoon jot ñu dugg ay oto daal di fas yéenee ñëw fii ngir gis sa jëmu ju sell ji. loola nag tax na ba nee na moom day wax dëgg yàlla kàddoom lott na lool ci yëkkati genn kàddu mu jëm ci yow waaye maanaam lépp loo xam ne si ne wax nañ ko mu tàmbalee ci man mii jëm ci yow jóge ko ci moom lépp loo xam ne si ne damm damm la nan xam ne ci man mii la waaye moom moom la mu wax moom mat matale na ko sëriñ bi nee na cofeel gu mu am ci yow ak bëgg gu mu am ci yow bu fekkonte ne tey jii dund na ba faatu lii amut man naa am bàmmeelam du neex waaye keroog bam ma ko waxee dama koo xamal ne ko day Sëriñ Tuubaa dafa wax ne ci ci ci ci ca Sarsara illa lazina illa lazina ila Sarsara xat qasado siyaaratin faaraxoo daarin aw saara ba mu waxee loolee am mag mu jóg daan na ko ah ku la fekk ku la fekk Sarsara rek mu am loolu mu ne déedéet ba léegi bu ngeen demee senegal ca réew ca réewi Kajoor maanaam bu nit génnee ci am néeg fekk mbokkum taal bi mu ci mu néeg na ko siyaare naa la dafa naan ko ci sira siyaareti faaroxoo daareen aw saara waaye sëriñ bi silla ñoo ngi ñaan suñu siyaareb tey jii yàlla na doon siyaareti sa faaroxoo daareen aw saara njaboot gaa ngi nii nag lottu nañ am na soxla ay ndaw lan waaye ndaw yu bëgg sëriñ Tuubaa lañ ndaw yu nangoo liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall lamp lañ sëriñ bi dañuy dagaan suñu jëm sa jëmm ju tedd ji ak barke barkeb gaay baax ak borom borom pàkk bii da nga xam ne mooy borom daaru muxti bu ñu tàbbee bu ñu tàbbee ca kër ya lépp loo xam ne aajo la yàlla na faj ca sens te bu ñu bu ñuy sosaat bis bii yàlla na fa wax sunu njort yàlla na fa wax sunuy bëgg-bëgg ci barke Muhammadu Rasulullah alayhi salaatu wasalaam te yow mii sil la sunu borom yàggal la fi lool nga ànd ko wér ci daraje darajey naa Cheikh Ahmad Bamba darajey borom daaru muxti darajey borom diiwaan ñu ngi la koy ñaanal bu baax a baax a baax ndax yow damay wax ne doo pokkub lislaam yow jënu lislaam nga lislaam bu dee mbaar si la yow jën nga cawu mag te yàlla xam na ni bis boo ko bis boo bis boo bis boo bis bu bis bu kii ba rëccoon bis bu eh, eh, jën jën jën ba rëccoon ñëpp danañ ko yëg kon nag dañuy ñaan suñu borom yàggal la fi nga ànd ko wér maa ngi ñaan ci doole sëñ Touba dara jëye borom Daaru Muxti te borom Daaru Muxti loolu tawu ko dama ne àjjana ak fan gudd tawut borom Daaru Muxti ndax man mii di wax ak yéen am naa maam joo xam ni borom daaru musti la la la tërbiyewu faatu na baam ay at sama sama sama sama sama rakki baay gis ko ci àjjana yu rëy rëy nee na boo ko dee diw sa àjjana yu rëy ji ko may dane ko du julli du woor borom daaru musti la doon moo doon yut ak satlaam jotu ko ma jottali ko ko ca laa amee sama àjjana yu rëy yi kon nag nanu xam ne fii lu waay amul yaa ko fi bëggut waaw te jàpp naa ne ndab ba ñuy déparé Touba set na ndax danoo yenn ci kër sëñ Mbay te lam doon def ci day mel ne ak maanaam ak raxas la kon ban ban fay jógee set na tey jii nag dañoo bëgg nga duñ ñu ban ne piik ne pek te maanaam bu nu bajantu bu nu bew te bu ko yëg te doon murum sëñ Touba nag loolu daal lañuy ñuy ñaan si la suñu xol set na bu baax a baax kon kàddu gi dañ ko jox sëñ maxtaan Mbub mu àggale bu noppee ñu soog a jox kàddu sëñ bi. ndax maag sëñ Thierno Dieng mii ma jàkkaar lool ak moom mii ñoo bokkoon benn ba nga école di jàng ku dëggoo ngi nii ku juba ngi nii ku ñàkk caaxaane ngi nii sëñ Thierno mii rek bi ñu ñëw ci oto mi ma koy nettali booba école arabe la ñuy jàng waaye dañuy njëkkante place yi kuy génn da ngay jël bic teg sa place moom mii mu ni barke mam Cheikh Ibrahima Fall su ma jógee ku teg bic ku ko teg sama place bu mu naa ko dam ñu jël bicu boppam bi moom teg ko ci mu ñëw bëgg ko dam ñu ne ko dañ lay nax sa biig mu giñ naa ko ci Cheikh Ibra ba noppi te faaw ma dam ko li wax di ca booba gone gu ndaw la wala boog ñun ñëpp ay gone lañ te biigam lañ jël teg ci di ko nax mu ñëw bëgg ko dam ñu jàpp ci ne ko dañ lay nax sa biig la mu ne wax giñ naa ko ci Cheikh Ibra ba noppi dama koy dam damata biig ba sànni kon dëggoom gi ak jiwam gi yàgg na ci moom li may wax Thierno Dieng mii fekke na ko ñoo bokkon benn banque école sëñ mbay nag man foo mënoon ànd ci man foo foo mënoon a ànd ak man ci àdduna dina ma neex waaye nag fii ma andi moom da ngaa karkaral lëg gi ba mu neex la rek nga dugal ko ci pax mi parce que fii la dëkk grand boobu jesneer bi ma jox moom la sama papa tabaski andi nga ma ci sama baay andi nga ma ci sama xarit kii sama maam daa toppoon maamam ni ko damay jébbalu ci yow waaye damay wayaan damay tux damay màndi te bëgg na dem àjjana maam ni ko loolu mënuma ko waaye maam Thierno mën na ko nañ dem ci maam Thierno Ibrahima Faty ñu ñëw ci maam Thierno wax ko mu ko kii neen day jëblu ci man day tux day naan day wayaan te bëgg naa dem àjjana maam Thierno Ibrahima Faty ni ko koo munta ay sikka ma toog kilifa defal ko kii yàgg nañ lool maa ngi moom Malick Mbuub moom muy woo rakk la Malick jàngkat mooy sëriñam ana Malick li wax ni maa mi Malick Mbuub la ak ak yow mii xam nga li may wax kon fi ma indi sawar naa ci lool li sëñ Axma wax ci ñii sëñ mbay àndal muy ay gone yu bëgg a yegg bëgg am ngërëmal Serigne Touba bëgg a baax bëgg a jub rek ñoo fi ñëw ñi ngi ñaan nga ñaanal leen fu ñu bëgg a yegg yegg fa lu ñu sumb daan ko yàlla defal leen seenu ndaw muy ndaw gu barkeel sëñ Bay nag yow kan jërëjëf ndax damay faral di wax ni kenn ku nekk la nga nàmp rek lay toqamte ko ku xam sëñ Modou kan Sine sa maam xam Baye Darou Kane mii sa waajur ak ña nga bokkal ñëpp xam ne ci Pastef ak ci taalibe rek ngay dox. fii ma indi nag li tax man la sama kër nga ma indi ñun njaay jàmm ñaan lañ dëkk maa ngi Malick mais taxaw li ñuy wax géeru judd ak géwlu juddu kii ñëw suñ géeru judd ñu ñooy géwlu juddoom bi ngay dugg si ci kër gi rek nee naa la dafa erreur xamal la mooy def erreur nga topp ku la dul jëme fenn wala ngay siyaare ji foo dul yokke wala nga ànd ak ku lay réeral kii nga àndal du réer du la réeral sëriñ Seex Silla la waajuram bu baax bu tudd sëriñ Mapaat Silla ko jur sëriñ Mapaat Silla Assa Aram Ndoye ko jur Assa Aram Ndoye Aram Ndoye ko jur Farimata Géye ko jur kura ko njoogoog Malick ko njoogoog Mar ko njoogo bokk ndeeg bàyyi koo njoogu ma jaara ñang la seen bàyyi tudd Biram Yaasin boobu sa maam fital gën a na jóg daana daana am fu ma la ma saana wooye nga taal fital yi ñoxat baa déggan maa sàmm ngaaj bur gaat mere demel dàq demel gànkal biram gu ñu béjje mbiram joojuf demel maa joor ma xure jaag biram baa ngaag daaw dema borom càkkal fën a jaani gamu loxo du ko dindi kër maa joor nga dëkk duñu dal dalli duñu yàpp polloor duñu bitig ndawal ku yàq seeni wax defar ko ku rey fa fas yendoo daw bu gàcci reer dañuy fande ma yaas ndikoo nga ndànn sa maam dañoo war mu dee maa joor sa maam dañoo war mu dee maa joor keroog jàngi xaali bu bi dama koy woy ba may ma li mu yoroon lépp ma xëy di ko delloo mu ma nag di ma ko delloo waaye dama lay wutal mbubb mbàkk grand mbubb dafa maa ëpp sama baay ñëw taq ci mënatuma ci dara da ko sol julli ji rek sama xol bi jeex waaye nag jërëjëf si la ah, Malick maa lay baax mbubb wax ji jërul muy gudd sëñ Mbay suñ xol sedd na bu baax a baax sëñ Modou Kara dong yaa ngi nii ay xale fi nekk ak ay jigéen ak ñoo xamante dañu soog a dugg àdduna nga ñaanal leen waaye laay fital ga génn na de ñoxor bàyyi déggan maa sàmm ngaaj borom gaar mere demel dàq demel Moustapha miin na lool de gànkal biram gu ñu béjjee biram joo jëf demel maa joor moxore jaag biram mbaa nga borom càkkal foo ne loxo du dindi sëriñ Cheikh Silla sëñ ma paata Silla asta aram ndooy aram ndooy ma mbend kurokoo njoogoo maar ko njoogu yaasin ko njoogu ko njoogu ma jaara ñang biram yaasin buubu ma joor ma xureja kuli ma samba takko amari ngoone sabel mi libéré kajoor ak bawal amari ngoone sabel laman dee ceefu njoogu laman dee ceefu njoogu kuro ko njoogu kuro ko njoogu yaasin ko njoogu maar ko njoogu ko njoogu ma jaara ñang kër ma joor saa jiga nga dëkk duñu dal dal duñu yàpp polloor duñ bitig ndawal ko yàq seeni wax defar ko Moustapha jublu na wala seeni wax defar ko ko rey seen fi was dañuy fande laa lay illallaah yàgg na koo dégg Malick jigéen nga fi dal gi lool de saa rakk waaye miin nga ko laa ilaaha kon Mbàkke kaddu yi ah, si la kaddu yu jëru muy gudd ñi ngi ñaan nga ñaanal ñi ñu àndal ñëpp yàlla seeni fan wéral seeni cër ñu yor luñ mën a jar seeni njaboot ndax ñii sëñ may àndal ñëpp ay gone lañ ay gone rek ko topp waaye réerul réeralul gone yi kon ñu ngi ñaan kan yow yal na yàlla guddal soo fan ci barke Sëñ Tuubaa ñu maas dégloo ñu dégloo ñu dégloo déglu na yéen bokki jullit yi. bokki taalibe yi. bokki taalibe maa ngi leen di nuyu. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu niiw. di nuyoo ci nuyoo bi. nee ci nuyoo bi. di jiital ci nuyoo bi. di jiital ci nuyoo bi. sama xarit. nee na xaritam. sëriñam. sëriñam. soppeem. soppeem di ku ma yàgg bëgg sama xol nee na di ku mu bëgg ci xolam di walla réew sama baay nee na di walla réew waay juram di doon sama royukaay nee na nagit di doolub royukaayam boo xamante ne sii boo xamante ne sii saab tegtal du ma nax mukk nee na ab tegtalam du ko nax mukk ndax siyaar bii ndax siyaar bii du lu ma nit wax ci àdduna nee na du lu ko nit wax ci àdduna ci coobarey suñu borom la ci coobarey yàlla suñu borom mii lif jaam ñi moom la ndax fu ma mësaane toog menn man nee na fu moom ma wéet mu wéet mbaa ma nekk ci biir néeg bu nekk ci biirum néeg dañ ma koy wax ba ma jóg dañ ko koy wax ba xam ne du dañ ma koy wax ba ma jóg génn dama koy wax ba mu jóg di génn nee bi waxuma la guddi de waxuma la guddi bëccëg bëccëg walla ngoon wala ngoon menn man bu ma toogee menn man su ma toogee dañ ma koy wax dañ ma di ko dégg ba si dinaa jóg dox ay jéego ma xam ne dinaa génn dox yi jéego ma soog cee waxtaan ak ñii ma doog cee waxtaan ak ba ma ci dalee waxtaan ak ñoom def na def na ay jéego def na ay jéego def na ay fan def na ay fan ñu rafetlu ko lool nee nu rafetlu ko lool leen sama kër mu woo leen këram. ñu def ci tuuti waxtaan. ñu def ci tuuti waxtaan. maam ñanga Mbàkke mi nga xam. si nee na soxna ñanga Mbàkke mi nga xam ne. xamante na ma ak moom. xamante na ma ak moom. yor numéro am. yor numéro am. ma àggee ko ko. ma àggee ko ko. mu ne ma sëñ bi de mi ngi fi. mu ne ma sëriñ bi de mi ngi fi. su ma jógee dinaa la ko waxal. su ma ko su ma jógee dinaa la ko waxal. bu ko defee. bu ko defee. bu ma joxee ndigal nga woo ko. su ma joxee ndigal ma woo nga woo ma. bi mu ko ko waxee nee na bi ko waxee sëriñ bi moom moo ma dal wool boppam nee na bi moo ko wooxal boppam nga xam wax naa man nga xam ne wax naa ak moom wax ju yàgg wax ju yàgg wax naa man wax naa ak moom waxi olof waxi olof yoo xam munu ma caa jaar yoo xam ne munu cee jaar ndax la tax munu ma caa jaar ndax li tax munu cee jaar loola loola du waxi gone nee na du waxi gone ndax ndax fa mu ko jëlee ndax fa mu ko jëlee nam ko jàppee ak nam ko jàppee ak la tax mu jàpp ak la tax mu jàpp ko nekkagut ci man nee na nekkagut ci moom loolu moo tax téyewu ma nee na loolu moo tax ma waaye man fépp fu ma teg sama tànk. ak képp koo xam si xool naa la balay roy. ak képp koo xam ne xool naa la balay roy. wóor na ma ni. wóor na ma ne. am na lu yàlla def ci yow. am na lu yàlla def ci yow. te kenn mënatu ca dara. te kenn mënatu ca dara. man nag ñaar yi rek laay soxla man nag ñaar yi laa soxla. ngërëm. ngërëm. ak àgg. ak àgg. kese. kese. soxlawu ma leneen nee na soxlawul leneen fu mu toll suba ngoon guddeeg ba cëg nee na fu mu toll suba ngoon guddeeg ba cëg ni Serigne Touba bëgge woon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Serigne Touba bëgge woon Seydina Mohamed ak ni ko doon royee. ak ko doon royee. noonu la tàbbee sama biir xol noonu la tàbbee ci xol biir xolam moom. te du ci génn mukk. te du ci génn mukk. te jaral na ma lu ne. na ma lu ma ci fekk nag lu ma ci fekk ma jël. wax ji jarut muy gudd nee na wax ji jarut muy kii dama tuddee baayam doom. yàlla dogal léegi si tey maanaam mu woo ma ne ma yow da ngaa tuddee saa bàyyi doom ma ne ko waaw mu génne ñeenti junni jox ma ni ma demal jàpp naa la tuuti ma la bàyyi xoolal fas gi yàggul bëkk démb dañ maa jagat ba dugal ma këram moom mi ma engagé kër ga ñëw jël ma yob ma këram may firndeel li mu wax nii ni da koy gis bëccëg kon ba mu ñëwee ba mu ma jëlee ba ma yóbbu këram man ñaara ma doon jàpp ma soxnaa nga nee taxaw ñoo ma doon dugal ci biroon a week a génne xam nga ni wat lii yàggut am naa fa juróom-ñeenti fan mu rey ab gàtt lu ma ko jox dama koo delloo ma dellu këram kon xam naa ne kon li muy wax dëgg te këram ba muy ñëw sama kër di dugg ci biir néeg ba daa engagé ne woo leen ma oto dama koy yóbbu sama kër kon loolu laay firndeel ni li da koy gis bëccëg da koy gis bëccëg te man dañ ma doon jàgg teg fi suuf di sàng ay yére di upp mu ma këram juróom-ñeent fan ba ma ko fay am di ko juróom jël na tax maa doxal saa bopp ba egg oto bi dugg ñibbi sama kër waaw tudde naa bàyyam doom doom ji nag yàlla dogal na am na ñaar fukki at ak la gaañu hmm. ca ma jàppee nag moom ba léegi may firndeel ni kon ni da koy gis bëccëg man gëm naa ko man Mm. man man ku ko wax man gëm naa ko man mm. ba may dem këram yàlla seere na xaw ma fu ma ne ana Souleye Diouf mi ngi fii mooma dong mook sama soxna ak moom mi ba yóbbu ma këram waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ahmadou bamba wa sallama tasliman ya cheikh ana ibnu cheikh أحاول أن أسلمك تعياتا بلسانه وأعلمك سرور صدوره ونقاء صدوره وأقول لكم أحييكم بتحية الإسلام كما سبق وأرحب لك وأعلمك بأن هذا المنزل منزلك الخاص kama yaqulu saahir mansiluna rahbun lakum wa kullu ma fi halalun lakum وأعلمك أيضا بأن التحابب بين الشخص والشخص لوجه الله أفضل من كل شيء لا شيء مثله شيخي وصديقي وصديقك أنت أيضا وحبيبي وحبيبك أنت أيضا يقول إنه شرور جدا بهديتك الجميلة الكريمة القرآن الكريم كلام الله لا شيء مثله ولم يرى أي شيء, شيء مثله في الدنيا تعلم بأن هذا المنزل منزلك الخاصة وهذه الهداية عادية جميلة وكريمة أيضا أمام aynihi wa amama ayuni annaas wa usahiduka bi annahu sururun jiddan li annani lam ara wajhahu abadan an yakuna misla haasihi lwajhi wa huwa abi daiman ra'aytuhu walakin lam ara an yakuna kama kama kana alyawm wa huwa sahidun jiddan taalam bi anna haza almansil mansilko alxaasa wa yumkinuka an taati mata si'ta wala taxaf ay shay'an tuhibuhu walakin huwa ahabu minka min kulli shay'in wa yajibu alayka an taalam dalika lidalika sa sa sa sa aqulu lak assalaamu alayka wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa usallimu aydan jamia jamia al <laughs> asqaas التي يأتون معك وهم أيضا لم يكن أي شيء ما في صدورهم إلا ما في صدرك أنت أيضا لذلك تفضلوا ومرحبا بكم على هذه هذا المنزلكم الخاص وتعلم بأن هذا المنزل منزلكم الخاص وكل ما فيه حلال لكم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw waaw lee yaa laa ilaa ceerno birahim ndaamal daaru laa ilaha illallah laa ilaha soppal maam ceerno birahim ndaamal daaru maa waat ni lii daal mayu bur laa yow yaay borom leer neen sa waay du xàcc jëm fet neen deesu la jëm di jëm let neen yaasin buubu ndey dab meel sa diina doy na xarnu béy sa waay du ñeetaan waayu ket neen borom daaru nga doy loog Cheikh Modou Kara mu sëñ Cheikh Kara bollet naa de ku ko sopp defal nii say baaraam ñu magal Cheikh Modou Kara Samadou Kara si la diiwaan sa waay du ñee waayu keneen sa waay du xacc jëm feneen deesu la jëm di jëm leneen sa diine doy na xarnu bee maam Cerno Birahim ndaamal daaru yow yaa njëkk ndar ci kër borom ndarey giñ naa ni yaay gor maam Cerno daaru su Bamba soxlaak yow lan fa wooloog yàllaa la woolu maam Cerno ndaamal daaru Cheikh Modou Kara Sylla yaay mbakkum Cheikh Ibra Fall yaay mbakkum Cheikh Ibra Fall ma degen deb mbaaj ñaaxana njaay isa jeey Fatim Penda la sukaabe demel de calaw Fall demel biram yaasin buubuk kura ko njogook yaasin kon njoogo demel biram yaasin buubu sab maam se moodu nga mi tu gërmi gundugal cig wilaaya day bari doole yaasin buubu ndey damel sa waay du ñeek waayu kedneen sa waay du xacci jëm fet neen deesu la jëm di jëm la neen bay kara se diina doy na bee addey borom diwaan si la nee na kii daalu nan ko génne fii ba nga xaye duñ ko dégg ay yoo xam nee na xolam dafa sedd ba nga xam ne nee na wax xaw na koo jafe waaye Serigne may yàgg mbooloo mi nga àndal yëpp ak mi ngi fi fekk nee na ak jëmm yu baax yi nga xam ne ñoo bokk Serigne Touba Xaadimu Rasuul yaakaari jaam ñi nee na Serigne Jili Sey nee na Moustapha rakkam ñi nga xam ne seen ñaari way jur ya ñoo bokk baay nee na muy loxoom ci lépp Moustapha doomam dib taawam jiite jiite donga yëpp nee na Bolle Njaay jiite daari dongay yi maam ak maam Jaara jiite donga yu jigéen yi nee na soxna maam Faati Mbakke moom sëriñ Abdourahman moom borom daaru Moti ñu koy wax Mbakke nee na soxna Fat Silla mi nga xam ne moo doorom moo doon jàngal xuraan ji di jot li sëriñ bi mu ne ci kër gi di magum kër gi di uuf ñëpp nag. nee na ki jur ndeyam doon doomi sëriñ ma ñaaw si nee na ak ñi nga àndal ñëpp ten am cër bi nga am nee na toogal la fii fi suuf nee na mi ngi nuyu ñëpp di la wax ne man day nekk sa baax rek nee na sa bëgg Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yaakaari jaam ñi nee na moom nga ko xoole rek ndax man li ma man defe naa ne nee na murit yëpp nee na seex yëpp buñ leen dajalee ka ca yées yàlla yaakaar naa ne man lay doon ndax man nee na man duma dara li ma da bëgg a doon daal jaamu Serigne Touba Xaadimu Rasuul yaakaari jaam ñi nee na tagg woo mën a am nee na lu mu neex neex ci xolam nee na bu noppee fàtte naa ko nee na li nga xam ne du ko fàtte murit saadeex ak a bëgg sëñ bamba loolu la ma nit di wax du ma ko fàtte mukk fu ma ko gisee mel ni tey la ko masa wax ma di la wax ne li ngay wër muy sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yaakaari jaam ñi te di wër fépp fii moom am na fi. borom diwaan borom kër gi. nee borom diwaan borom kër gi. dafa waxoon ne. dafa waxoon ne. aajoom nar te faju. du dugg ci biir kër gi. kon. kon. sa sa aajo ju faju. nga bëgg a faj aajoy jaam ñi nga moo leen fi dugal. la ca desit. nee na dug wilaaya borom daaru nee na pas pas mën na loo xam ne pas pas ne man wala bu ko wilaaya mane it sañ nee bi muy ne ci géej gi moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul yaakaari jaam ñi nee julli jot nee na julli nee na lu ko gaal gi ne ko doo ci julli mu waajaat masla bëgg a julliwaat ñëwaat ko aye ko gaal gi yetteelu yoon ba ba muy sànni der ba ci biir mbeex ma di ko fekki nee na ko ci wilaaya te yàlla xamaluma ne ma su ma ko defee da nga mucc waaye naa ko def lu ma ci fekk baax na lool la ma yàlla musalee borom daaru Serigne Touba da koo bàyyi ak njabootam ci daarul ma naan sëriñ Fallou sëriñ Fallou sëriñ Modou Moustapha sëriñ Baara ak njaboot gu bari ne ko Modou ne ko njaboot gii ma amal saa bopp njaboot gii ma amal saa ak ñi ma fekk te yàlla tax defal ma ci ñoom yat defal ma ci ñoom yat sàkkul ma leen xam ma xam yaral ma leen jàngalal ma jàngalal ma leen ab liggéey nee na bu lépp mënee daje. bu lépp na lépp daje ci ñoom. bu lépp mënta daje. lu ca nar a manqué. na nekk xam-xam ba. ndax ceerno. nit dina am xam-xamam yalwaani. waaye kenn du ànd ak sab liggéey yalwaani. daal ne wërëñ. ne ko njaboot gi nag. foo leen mën a yore. baax na. nee dem. Ceerno des fi ak njabootu Serigne Touba gi yàlla tàmbali ko nat nag ci njabootu Serigne Touba gi ko Serigne Touba dénk nee na xiif daal di ñëw nee na weeru yàlla cin tàkkut ci kër gi buñ xiifee ba lot Ceerno ne ma ñëw nu añ nee na bu génnee ñëpp di waxtaan ci Serigne Touba yàlla yonent bi ba ñëpp fàtte seenub xiif ñu dugaat ci biir ne yi tëdd ba mu yàgg ba mu yàgg. am ku ko déy na ko am ku ko sa mbokk mi ñuy wax diw Mbàkke. ne ko sa mbokk mi ñuy wax diw Mbàkke. am na sàqum ñett am na sàqum ñett. guy nguraa la dëkk guy nguraa da koy jéegal nee na da koy jéegal jéegal na mooy bàyyi ren ba déwén. ten ko ca leb ay njël nee ten ko ca leb ay njël. Ceerno yónnee ca Ceerno ca moom. leb ca ay njël leb lu ma ne ko mbokk ma ne ko. sàq maa ngi fi sàq maa ngi fi. waaye sàq mi nag. mayewut mayewut leblewut saraxewut neel Ceerno sama sàq mi dama koy jaay soo amee njëg ma jaay ko soo amul njëg na ma fi bàyyil sama am sàq daan na Ceerno kër ga mu ne na tas kër ga fuuti fu mu làqu ji ndax ki muy nekk du del siwaat ndax ñi ko jël musu soo jël nit mu dellu si nee na ban ko waxee maam Ceerno mu ne daa xamut ki may mu ne xamul Thierno mu ne xamul Thierno man mii. nee na xamul Serigne Touba Xaadimu Rasuul jaam ñi. Serigne Touba du kon daan te lii mu wax yoonam newu ci. na ma lebal na ma lebal su ma mënta lebal bu lebal waaye lii mu wax yoonam newu ci. ay fan ñu andi addiya. teg ko ci loxol Thierno teg ci loxol maam Thierno. ni mu mën a jënd sàq ma. mu yónnee mu yónnee lu sàq mi ñu defee na daf koy def ay njël mu ne yàlla sama borom daf may xool saa pas-pas bi rek la yàllay xool ak Serigne Touba waaye njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasuul gi yàlla du leen rey mukk ci ab xiif nan ma ñagal sàq mi nee ñu fab sàq mi ñàkk ba dara mënu caa dem nee na ba nawet nee na lu xët sàq mi bojj ko mu ne sàq mi nañ ji lépp nee na ñu ji sàq mi lépp nee na dafa bari ba mbooy gi nga xam ne kenn bayu ko sàqi fukk ñor na ci biir mbooy gi nee ba sëriñ Tuubaa del siwaat xiif amatut nee na bi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yaakaar jaam yi ñëwee ñeneen doon nañ def lu baax nee na ñeneen doon nañ def lu baax la Ceerno doon def waaye Ceerno daal téeméeri mbaam téeméeri mbaam yi yóbbu dugub njaarim day dajeeg téeméeri mbaam ñu dëpp yóbbu ba dëpp téeméer demaat am na bis sax nee na am na bis na nañ ko wutal téeméeri mbaam nan ne nañ ko wutal téeméeri mbaam wutal ko téeméeri cerno wutal ko téeméeri cerno cerno mu ne nañ ko jox nangam cerno mu ne nañ ko jox nangam mu ci loxoom bu ngeen eggee ci borom bu ngeen eggee ci borom Tuuba joxal leen ma ko mbaam leen ma ko mbaam yi ak sëf yi ak cerno yi te bu dara del siwaat wax nañ ne. wax nañ ne. keroog bañ eggee. keroog bañ yeggee. ba ko Serigne Touba. ban ko joxee Serigne Touba. génn na génn na. fatuwaat fatuwaat. génn fatuwaat. ba mu yett yoon mu ne daa doon wax ak yàlla mu ne daa yàlla. yàlla nee na ma yàlla nee na ma. neel nañ ko lu amati lu mu amati na ko def ci boppam. yabal na yabal nit. ci Thierno ci Thierno. Cerno lu ma mas a nee na Cerno lu ma mas a wax def naa ko waaye lii de moom nee na Sëriñ Tuubaa lii du ma ko def ndax du ma wàcc nee na moo ma njëkk a jóg moo ma gën a xelu moo a dàq daw te ba ma fa la àkkagul kon su ma àkkloo du ma àkk ñu teg ci fan ñu teg ci fan mbas am ci dëkk bi ci dëkk bi dugg ci kër Cerno dugg ci kër Cerno nag njabootu Sëriñ Tuubaa gi am am ñu tawat am ñu tawat. sëriñ Baara bokk ca sëriñ Baara bokk ca. Mamadul Amin Mamadul Amin. tawat tawat. bañ doggale ko. ñëw wax ko Thierno nee ñëw wax ko maam Thierno mu ne mët Lamine Sam moom ñu ne ko waaw ah, mu ne déedéet ne ñoo ket taxaw waaxu wut si ko kee topp ci moom nee Thierno day waaxu damay daw nee na mu ñëw ba tiim sëñ Baara ba côté mu ne kee det mët Lamine jógal jógal jógal sëñ Touba dara doo dégg ma dara ma di ko laaxan jógal mu ne ñoo ket di ca la waatoon ca ne yàlla maa ngi lay ñaan ne yàlla maa ngi lay ñaan njabootug Serigne Touba njabootug Serigne Touba Xaadimu Rasuul kii soo ci naree jël kenn soo ci naree jël kenn jëlal soxna Faati jëlal soxna Faati yi sa way juróom wu jigéen wala Mouhamadou Awa Balla wala Mouhamadou Awa Balla taawam wala Cheikh Awa Balla wala Cheikh Awa Balla mi ci topp wala Mouhamadou Habib wala Mouhamadou wala man Thierno waaye njabootug Serigne Touba gii yàlla tin ma ci yàlla defal noonu la ko ko defalee sëriñ Cheikh ab taalibe bu ñuy wax Ousmane Ndiaye. sëriñ Cheikh Sylla Diwane way juróom moom mi toog taalibe bu ñuy wax Baye Ousmane Ndiaye ca Kaolack. sëriñ bi dafa ne cëpp. sëriñ bi dafa ne cëpp Kaolack. fekk yuuxu yi jib fekk yuuxu yi jib. lu xew fii ñu ne sa waaji day moo faatu fii mu ne kan Ousmane Ndiaye ñu ne ko waaw mu ne anam ñu indi fi ñu ko tëral mu ne nii ci la moo boppam saaga ko ndey jógal liggéeyal Serigne Touba dóor kow daal mu ne ñokket di ju xam nga lu ah? ah? mu ca teg xam nga lu mu ca teg xam nga lu mu ca teg xam nga lu mu ca teg dégloo na dégloo am xam nga lu mu ca teg li may indi nii nee na li may indi nii mooy pas-pas Serigne Cheikh dafa yenu loxoom ca kaw ne lu ngeen di wax aasi la lii de ëpp na mu ne ëppul man damaa natt pas-pasam sëriñ Ousmane Ndiaye mii natt sama pas-pas man sëriñ Cheikh Sylla Diwane xam ne mënees ko cee dimbale. daal ne ne borom daaru nee pas-pas mën na loo pas ne wilaaya du man wala bu ko mënee du kon sëriñ bi ci sun pas-pasu bopp ndab li ngeen andi mu set wecc. ndab li ngeen andi mu set wecc. ndab yëpp ndab na ko duy fii ba mu fees del. jafe wut a duy. nee na ndab yi jafe wut a duy. ndax bu doon lu ab buur yor. ndax bu doon lu buur wala ministre. président wala ministre. wala milliardaire. wala dina jafe waaye ñoom lii ñu yor waaye ñoom ki ko yor ki ko yor mooy yàlla te yàlla du jeexal te ab tab la te yàlla sunu borom lam yor la muy bari bari soxla wu ca dara kon sëriñ bi li ñu bëgg defuñu ko fi dañ ko fee fekk nu bokkoon ko ndax kër yëpp ñoo ko bokkoon li nga bëgg fekk nga ko fi des na ko def dinaa la waxit ne la li nga ma bëggee li bëggee boo ci génnee sëñ Touba boo ci génnee sëñ Touba dara du ci des nee na dara taxul nga bëgg ko lu sëriñ Touba Xaadimu Rasuul yaakaari jaam ñi nee na ndokk moom it ba nga xamee ne li mu lay nangul sëriñ Touba kese la mbégte mi maam nee na mbégte mi moom tey bu doon président may nee bu fekkoon président may seet ci tey du ma ko am bu doon milliardaire nee na bu doon borom milliardaire du ma ko am. mën na ma am sax nee na mën na maa am sax. seex bu ma seet seex bu ma seet si. waaye du toll nii waaye du toll nii. ndax man nag xam naa luñ ma waxut. fi mu toll nii fi mu toll nii li ma xam li ma xam sañu ma koo wax. waaye sëñ Modou Moustapha. waaye sëñ Modou Moustapha. moom Serigne Touba moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul. dadaa wax ne wax ne. ku tegewul ci yoon ku tegewul ci yoon. nañ ko ñaanal mu tege nañ ko ñaanal mu tege ci yoon. ku ca tege ku ca tege. nañ ko ñaanal mu yegg. yow tege nga jiw yoon yal na nga yegg fa nga jëm ak ñi nga àndal léegi nag léegi nag dama bëgg ngeen dugg fi barab damaa bëgg ngeen dugg fi barab naan café gi rek nu yeewi leen ñu yeewi fii nag bis bu la neex bis bu la neex jàppal bis boo bëgg a jàppal bis boo a ñëw waaye nekkatul ngan waaye nekkatul ngan booy ñëw daal booy ñëw jàppal si sa kër ngay dugg kenn ëppaleetu la ci kër gi Moustapha mi nekk saab taam nekkum taawam. Moustapha Ndiagne Male Moustapha Ndiagne rakkam. boo leen fi ëppale boo leen fi ëppale wut ëppale wul la fi nangu leen ñaan. ah sa sécurité ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan yal na leen yàlla wattul boppam yal na leen yàlla boppam ñu ngi ñaanit ñu ngi ñaanit li nu bëgg te noppi waale ko te yaakaar ko ci nun buñ génnee buntu kër gi na tàmbalee ñëw ci ñoom sëñ nee na sëñ Abdou Khadir Seye sëñ Jili Abdou Khadir lampum jàmbur. nee na mbokki jullit yi. mbokki taalibe yi. nee na Seex Ahmadul li taxoon ñu jógit te li taxoon ñu si ko. si ko. mooy wëllëre gi nga xamante ni mooy wëllëre gi nga xamante ni. doxoon na ci diggante sëriñ Touba. doxoon na ci diggante Serigne Touba. jaar ci maam Thierno. jaar ci maam Thierno. ak borom diiwaan. ak borom diiwaan. ak Cheikh Mamar Fallou. ak Cheikh Mamar Fallou. Cheikh Mamar Fallou. Cheikh Ahmad Fallou. Cheikh Mamar Fallou lampu muy nit koo xamante ni ne. muy nit koo xam ne bii. li ñu wax rek lañ xam ci moom. li ñu wax rek moom lañ xam ci moom. ndax ma shahidna illa bima alimna. du ñu seere ci nit mukk lu dul lañ xam. du ñu seere nit ci mukk lu dul dëgg. lazim jikkoom. nee na ak pas-pasam. ak pas-pasam. akuk mbaaxam. akuk mbaaxam. akuk laabiram. akuk laabiram. moo tax ñu jàpp ko ngir jëmmi Serigne Touba moo tax ba lu bëree bëri dox ba lu bëree bëri dox ci suñu diggante mu jàpp ñu jàpp goo xam ne mu jàpp ñu ko sax mënuñu ko sax bi mënuñu ko wax ñett li ci jataay bi li nga xamante daal ñu ngi koy ñaan nee na li mu xamante daal ñu ngi koy ñaan ci barkeb seexul xadim ci barkeb seexul xadim barke borom daaru barke borom daaru barke borom diwaan barke borom diwaan barke sëriñ Mor Sey barke sëriñ Mor Sey mooy yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko fi yàlla yàggal amiin seexul daal lan amal luñ ci nee loolu lan amal luñ ci wax wasalaamaaleykum